réveillon Saint-Sylvestre wala réveillon du jour de l'an aada boo xamante ni dañ koy feete saay su bu at mu bees di teru ci réewum Sénégal nag ñu bëri ci askan wi ñoom ca boîte de nuit ya lañ koy feete maanaam ay soirée wala yu ni mel moom la ñuy amal ci guddi gi yépp waaye nag kii di soxna Aïda Diallo nekkoon soxna ci Cheikh ca Thioune nekk njiital cantaakon yi wala sax Aïda kon yi moom defut lu ni mel ak cant gu rëy la woote ca Médina Salaam bisu 31 décembre mu ànd fa ak mbooloo mu takk loolu ca Medinatu Salaam soxna Aïda Diallo yëkkati na fa ab message bu am solo jagleel ko ñi nga xamante ni ñoo di cantaakun yi bootu ci ginnaawam moom soxna si mi ngi sàkku ci taalibe yi nga xamante ni ci moom lañ aju ñuy wéyee ndigalu Cheikh Béthio Thioune maanaam di jéggale te am worma ci bépp doomu aadama te bañ a yëkkati bépp wax bu ñaaw teg ko ci deru nit nee na loolu mooy doxalinu ab cantaakun ndax ab cantaakun dafa war a am xol bu làpp boo xamante ni benn iñaan du ca nekk waaye lu mu ci mën di doon rek soxna Aida jàlloo ràññeeku na lool ci atum 2019 depuis génnuk àdduna Cheikh Béthio Thioune le 7 mai 2019 ca réewum France moom soxna Aïda Diallo nag xeex na ba jël palaasu leader bi nga xamante ni moom ak taawub Cheikh Béthio Thioune bii di Serigne Saliou Thioune ñu gën ko xam ci Saliou Gueule Tapée ngir gën a wéyal œuvre yi nga xamante ni Cheikh Béthio Thioune bàyyi na ko fi mbir moomu nag li koy firndeel mooy mobilisation bu rëy bi nga xamante ni def na ko ci màggalu Touba gi nu génn tem ko doon célébrer foofee ca Ngaabu di nekk ab dëkk boo xamante ni 8 kilomètres rek moo dox ak Touba bis boobee nag soxna Aïda Diallo taxaw taxawaayu Cheikh Béthio Thioune ci kaw suuf ñi jaar ngaabu bis boobale duñ weddi lu ni mel Aïda Diallo nag ñenn ñi gën ko xam ci soxna Aïda Saliou marqué na actualité bi bu baax ci atum 2019 ba loolu sax tax ñenn ñi di laaj est-ce que du nekk femme de l'année 2019 lu mu ci mën di doon daal soxna si yëngal na jamono yëngal na atum 2019